su mbale mi teroo ci Touba ñëppay ballonu jàppoon ñëw nag soobu ci liggéey bu am solo bii kenn du des daayira yi communauté Baye Fall mbokki taalibe yi association yi ndaw yi mag ñi ñëpp nag tas ci biir gox yi fépp fu mbalit nekk dinañ ko tonni teg ko nag ci ay point ngir xaar camion yi ñëw yóbbu ko. mbale mi ñoo ngi ci marché Ocass waaw ñoo ngi ci marché Ocass ñoo ngi jël ramasser ci mbale mi di sant di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te wér. Baay Faal yi nag moom kenn du ñoom barke Seexul Xaddim fii si marché Ocass si Ndiobène Taye barab bi nga xamante ni mën nañu jàpp ni daanaka mbalitu marché bi fii lay tase ak gox yu ko wër daayira Baay Faal yi fes fi loodu nekk ca waar wa liggéey si liggéey maam Cheikh Fall bi ak suñu njaboot ñu jógee boor saw ñëw bi moo ñu tax yiti waaw fa ñu jógee waaw pour liggéey si liggéey si maam Cheikh Fall bi rek euh, fee juróomi fan bi keroog yeewuñu ñu ñu fi jëm ndax ñu ne ay Baay Faal lañ fekk yeewuñu amul droit jóge fi waaw kër suñu Modou Amita ñun suñu Moustapha Mbar mooy suñu jëwriñ si foofu. ñu ngi ñaan daal sëñ Mountakha yàlla yàggal ko fi te wér ànd ak wér ak la ci ba dañoo barkeelu woon ci liggéey bi li ñuy def nag Baye Fall yi baax na lool set setal defal dëkk bi sëñ Mountakha ah xanaa barkeelu ci rek ne rek barkeelu ci. ànd ak sëñ Fall Fall mu baax mi rek Fall yàlla na fi yàgg te wér ñu ñëw liggéey si sëñ Touba xam ne suñu maam maam Cheikh Ibrahima Fall moo xal yoon ba yoon wi leer kon sëñ Fall kontaan waaw ah, ñunu suñu booloo waa kër Cheikh Babacar Ndiaye Xaadimul Xadim ñun wax dëgg yàlla niñ ci taxawee mooy tasaaroo rek ci dëkk bi mboolem loo xam ne gis nañ ko mu war a set wala ñu war koo sell wala ñu war koo yaatal rek ñu fexe ba loola set yaatu sell ngar ngir ñi nga xam ne nii ñu ngi ñëw ci dëkk bi bu ñu ñëwee maanaam li nga xam ne nii moom lañ bëgg ñoom ñu mën koo am nañ ko bëggee kon lépp lu ci nit def rek maanaam maanaam maanaam day loo xam ne daanaka boo ci defee benn te sëriñ bi dox naa boo defee loo man ñu defal loo mënut boo defee loo mënut ñu defal la jomb ko lebal ker mu fay la guddi kon kookee boo ko nekkalee ci naaju da lay leer ne moom ak payoor moom dee ko ci séentu ndax sëñ Tuubaa moom ku ragal bor la si beneen wàll ñu yor mouvement yeeg association yi kuréelu tailleur yi ak ñeneen sax ñi daan seen doole tënku nag si ay kuréel ña ca ñoo jënd ay bale ñoo jënd peel ñoo jënd masque surtout sax ay ñi nga gis soo leen gasoil bu pare fay loolu lépp ne a kenn waruñu bi fu ñu ko feseen doxee xanaa ànd koog ñoom di leen jox ndox fu ñu toll di ànd ñoom ci liggéey bi bañ leen ko bàyyee ndax tamit dëkk bi suñu dëkk la ñun la moo tax ñu bàyyi li ñuy def ñëw ci marché occasion bi xanaa ñun fi la ñuy daanee suñu doole pour bale ko ba mu set bernde yi naka noonu ndox mi di jalaaño café gi mu doon jaayante bu am solo transporteurs yi joxe camions yi te laajuñ dara ñii joxe ay bale ay buret ñiy féete togg bi bu njëkk bi si Touba gox yépp ñu ngi ko fay amal dëkk bi leer nañ place yépp tëj mu mel ni woote bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général amaloon jaare ko si sëriñ Cheikh Abdou Latif taalibe yi dégg nañ ko loolu jublu si nag ngir teeru gan yi jóge si àdduna wërngal këpp ak réew mi si màggal gi ñuy sentu si ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru octobre